s'il a menti ou pas Il faut l'air. donc je bi nga ma toujours les répliques, les répliques, accusations. Pape Alé finger top, nga la magistrat France xam nga faites bu da il faut que la France nous foute la paix yéen a Ousmane Sonko ko il faut que la France dégage son coude yéen a c'est Guy Sagna qui a théorisé la la philosophie ou bien la nous la pensée de France dégage ce qui a abouti à chaque fois que problème am boy génn songu ay Auchan songu ay Total c'est vous qui avez développé ça Il y Pape Alé Niang ñëwaat di ñu liiral ay magistrats français mais kii mais magistrat français. Mais qu'il aille au diable, c'est le problème. Quoi qu'il puisse dire, tous ceux qui s'évertueront à brûler le Sénégal s'opposeront aux forces de défense et de sécurité, lesquelles useront de tous les voies et moyens légaux mis à leur disposition afin de préserver cet État, notre État de droit, de préserver la paix, la sécurité de ce pays et, et bien entendu,

Le la il y aura même pas procès Moi, je ko et il ne peut pas y avoir de procès parce que l'ordre dans ce pays sera maintenu advienne que pourra loolu dafa war a leer mais loolu tax may J'accuse Pape ma d'avoir, a accusé, mooy j'accuse Pape Alé en direct. Il n'y accusé pas de jiiñ Pape Alé Niang en direct ne daa génne alal bu bëri def ko ci naawtal xelu le juge Mamadou Seck maa ko wax dagg leen ko partage bi fu mu leen neex man maa ko wax Pape Alé Niang bi moom Dakar mate man maa ko jiiñ en direct sur YouTube sur Facebook sur TikTok dugal leen ko fu mu leen neex man maa ne Pape Alé Niang daa génne alal bu bëri dépensé ko ngir naw al xelu juge du Seck ngir bu jàkkaarloog moom rek mu jox ko passeport man maa ko wax man Bah Diakhaté maa ngi koy xaar maa ngi koy déglu moom wala ay avocat man maa ko wax j'accuse Pape Alé Niang d'avoir dépensé une forte somme d'argent dans le but d'atteindre l'intégrité mentale du juge Mamadou Seck man maa ko wax je l'écoute mooy Pape Alé Niang quant à Babacar Touré Kewoulo

yor suñuy nit di déglu di renseigné wu di nous vous renseignons que li Babacar Touré Kewoulo di wax au fait les proches de Bijou font un témoignage sur Bijou sur Kaba Diakité ou bien sur Bourahima Kaba mënu leen dindi loolu li ma wax mooy tout le ne Bijou tout Bijou tuddul Kaba Diakité tuddul Bourahima Diakité ñett tur yëpp moo loolu et vous l'avez confirmé vous allez confirmer que sa maman est décédée en Gambie mais lui il est de Tambacounda papa fa de dëkkoon tuddee ko Bourayma Kaba maintenant